café Touba gaa ngi mel ni tulleeg male yéene kaay gi nee na màggalug 18 safar gi maanaam bis la boo xam ne murid yi nag dañu ko fonk lool yéene kaay gi nee na xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou génne na lu toll ci 150 millions ngir naka jàppale ko ñi nga xam ne maanaam inondation yi dale na sonal ci diwaanu Touba jël na lu toll ci 30 millions jox ko ñi nga xam ne ñooy waa Touba ci kanama yéene kaay gi di Walf Fadjri xëy di ñu xibaar naan ñu inondation yi ci Touba bu muy tuulee dina am ñoo xam ne dinañu am ay jafe ci lu jëm ci wàllum ndox mais yéene kaay gi di Dakar Times bàyyi mbir moomee wax ci lu jëm ci wàllum économie réewum Sénégal la ko sooxe gi nga xam ne maanaam moom la sooxe jamono ji économie bi dafa sonn ba maara détail yi loolee waa banque mondiale ñoo ko xamle li nekk ci yéene kaay gi di réew mi quotidien mooy nag député yi nga xam ne ñoo ngi leen di tudd ci lu jëm ci wàllum trafic passeport diplomatique yéene kaay gi nee na député bii di Mamadou Sall bëri na ñoo xamante ni nee na mooy seen baay te du seen baay da leen a bëggoon a wutal ay passeport diplomatique yéene kaay gi ne nag at yu bare bari li leen defal am na ci koo xam ne Omar Sall la tudd am na ci koo xam ne Moussa Antoine Sall Sall Seydi Wage Sall Aïssatou Sall yéen kaay gi ne na ñooñu ñëpp 2018 la ñu leen wutaloon passeport diplomatique waaye nag mbir mi daal bi ñu ko càmbaree maanaam toll na si ñetti at yoo xam ne trafic bi am na yéen kaay gi di source nee na nag député yi nag maanaam ay hors la loi la ndax nag bëri na ci ay député yoo xam ne ñoo ngi leen di tuumaal ci lu jëm ci wàllum trafic passeport diplomatique lu jëm ci wàllum trafic faux billet ci ci wàllum ñàkk xëy di ñu xibaar naan ñu vidéo bi Seydina Fall Bouga Sali bi nga xam ne daan nag na gendarmerie ubbi nañu boo xam ne jot nañu koo déglu am na keneen koo xam ne yàggatul dara danañu ko déglu yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy dañu xibaar naan ñu Macky Sall nag demoon na ca Touba di inauguré hôpitalu Touba bi waaye nag opération da charme Macky Sall nag dafa dem nag Touba maanaam di góndi askan wa daal di leen di charmer daal ngir nag askanu Touba maanaam mën a ànd ak moom daal ngir nag man koo voté la waaye nag ba léegi nii Macky Sall daal jafe na lool ngir askan askan wi nga xam ne ñoo yeewoo Touba ànd ak Macky Sall ci lu jëm ci wàllum politique moo ne day Macky Sall te discours ba nag daat nay wax ne moom li mu def Touba kenn mus ko faa def nag sëriñ bi nag moom kontaan lool ci Macky Sall waaye nag est-ce que askan wi danañu kontaan ci Macky Sall Macky Sall nag moom daal daat nay wax ne moom ab bienfaiteur la dëkk bii di Touba yéen a kaay gi di réew mi quotidien ci xëlim ak Assane Samba nee na nag Macky Sall il faut mu am loo xam ne mu jàpp ko ne xaalis nga xamante ni moom la def réew hôpitalu Touba du xaalis boo xam ne ci poosam la jugee waaye nag xaalisu askan wi ba tey ci biir suurnal bi moom nag Assane Samb nee na nag Macky Sall dañu koo fal ngir mu def ay réalisation waaye nag falu ñu ko ngir mu def ay réalisation ñu war koo récompenser ci lu jëm ci wàllum élection ñi nga xam ne nag ñoo yeewoo Touba kenn ku nekk am na sañ-sañ maanaam votel ku la neex waaye nag képp koo xam ne daal dangaa jàpp na njiitu réew mi bu defee ay réalisation ci benn gox gox boobee yëpp daal dañoo war a mobiliser votel ko yow nag xamoo nag principe républicain yéen a kaay gi xëy duñu xibaar moom ñu diggante Macky Sall ak communauté mouride bi bu ñu waxante diggante dëgg ak bëggante ci boppam moo fa amul yéenekaay gi de La Tribune xëy dañu xibaar naan ñu ñoo ngi jëm ci ñu nag daal di publier nag ay vidéo yoo xam ne yu doy waar doy waar la ci ay kilifa ci réew mi ci ay personalité moo tax bëri na ñoo xam ne ne la watuñ ba yandoor yéenekaay gi ne na panique générale malaise dëgg moo am ci réew mi malaise social lii nag dafa mel ni daal askan wi dañoo bañante yéenekaay gi de enquête xëy dañu xibaar naan ñu lu jëm nag ci fësal vie privée jàmbur loole jamono ji ñu bari daan ñu si tiita si cause moo si am yéenekaay gi de La Soleil xëy dañu xibaar naan ñu nañu alhamdulilah coronavirus bi nag wàññeeku na lool lool lool ci Sénégal yaakaar daal am na espoir yéen kaay gi di esat xëy dañu xibaar naan ñu jamono ji nag jot na sëkk équipe nationale bu Sénégal daal di convoqué Bamba Dieng mi nga xamante ni jamono ji mooy toj Olympique Marseille journal bi ñu xëy fekk fa El Hadji Ousseynou Diouf daan nay wax ne kaan bi nga xamante ni moom la ñu jëm maanaam Coupe d'Afrique bi Aliou Cissé nag bu ko gañewul bàyyi boo nag mu démissionné ci ni mu gën a gaawe bala ñu koy dàq Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec